salaamaaleykum mbokku internet 28 produits ñu ngi leen di nuy bu baax a baax di leen dalal seen émission bi nga xam ne day yëngu ci lépp lu jëm ci wàllum mode beauté lépp luy tendance rawatina tabaski bi ñu jub si lépp loo xamante ni daay jëm ci wàllum kol ak greffage lépp luy tissu yow yaa xam ngay tailleur yaa xam ngay jaay tissu wala ngay jaay lépp loo xamante ni day yokk taaru jigéen rek mbokk commerçant yi yéen ñuy jaay tissu yéen tailleur yi yéen borom salon yi lépp loo xamante ni day yokk moo xam muy bien-être lépp luy maquillage greffage col ak lépp loo xamante ni moo di tissu yéen ñi nga xamante ni yéen a am lu ngeen di jaay te bëgg koo fësal ñu ngi leen di xaar ngeen wooñu ci numéro bi ngir ñu daagu fekk la ba fi nga nekk daal di fësal wane li nga xamante ni ci nga yëngu.